keneen ku dul ñoom amu ko ginnaaw xéewal ak lislaam ak iman fàttalent dafa bokk ci luy dundal xolu ki gëm yàlla comme ni ko aimatu salaf doon waxee ndax gàncax ni muy soxlaa ndox pour di màgg noonu la xol di soxlaa fàttali te alquran jiitu ci li ñuy fàttalent noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala sunu jotaay bi mu boole ko jotaay yi muy barkeel te yàlla defal ñu tawfiq ñun ñëpp fii ci àddina defal ñu ko ci àllaaxira yembal suñuy mbir lépp saxal nu ci njub bu ñuy dund ñu nekk muslimin bu ñuy faatu ñu moo nekk muminina muwahidin bind ak tey bi xam naa dana nekk bind boo xam ni nekkee sut leen lees waajal waaye nag borom bi subhanahu wa taala def na diine moom amul fu nu mën a dajee ba weesu tasaaroo lu dul danañ am ay mbir yu mën a fàttaleen taman caa jariñ ñu tànnoon tey mawduu bu mel ni al manhaju nabawi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi daawa manhaju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daawa ndaxam mawduu bu mel noonu dina ëmbaale ci ay mbir lu bay loo xam ni ci ay jawaanib shatta lay doon ci loo xam ni gone yi danañ ci jariñu mag ñi jariñu ci jigéen ñi jariñu kadalika góor ñi xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bu nga xam ne yonent yi yëpp jaar nañ fi tàmbale ko ci baay aadam jaar ci ñi nga xam ne xam nañ leen ak ñi ñu nettali wut aadama idris nuux hud saleh shuaib muusa yaqub yunus yusuf ba nga yegg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent yooyu yëpp ñoo bokk benn manhaj buñ doon wootee mooy woo nit ñi ci jox yàlla li mu moom subhanahu wa taala ci kennal ko ndax nit kat dajee wut ak borom subhanahu wa taala àllaaxira lu ko gën a jayu wéetal ko bakkaar bu doomu aadama mën a indaale àllaaxira te bokkaale yàlla bokk ca loola magoñ la la yaakaaru kaay la pour mën tàbbi àjjana su fekkee bokkaale bokku ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yegsee nag ci manhaju yonent yooyu la jaar te loolu la ko alquran di jàngal ah wattabia millata abika ibrahim toppal sa yoonu baay ibrahim moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun yonent yëpp benn lañ ay doomi ndey lañ sunuy jamono wuute rek waaye manhaj biñ doon woote benn la boo demee ci suuratu Shuara nga xam ne yonent yu bari suñu borom tudd leen fa kenn ku ci nekk manhaju daawa mooy tàmbali ci wéetal yàlla moo leen muskila bu nit ma sa traité nag kii dafa ñëw fekk ngóor jigéen ci dëkk bi kii dafa ñëw fekk ñàkk a matal peese ci dëkk bi kii dafa ñëw fekk nit ku mel ni Qaaruun kii mel ni Firawna kii mel ni Haamaan muskila boo mën a traité rek da ngay tàmbale ci woo nit ñi ci wéetal yàlla tàmbalee ko ci Moussa ba ci yonent yi nga xam ñëpp suñu borom tudd nañ su suara ak ya ko jiitu lu mel ni aara yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bi mu ñëwee mu nekk xaatimul anbiya daawaam dafa war a mottali mboolem daawa yooyu yëpp ba pare tëj ko nag moo tax yonent dootul amati ci ginnaawam suñu borom mu ne huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl fi dalalin mubin suñu delloo ci saxiixu muslim ci xadis boo xam ne Ayyaad ibn Ximaar moo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na sunu borom nee na dafa bind jaam yi ñëpp ñu nekk xunafa mooy ñoo xam ne dañoo jaar ci yoon wi sunu borom bëgg ñu set te sell ci mën a wéetal sunu borom. seytaane dikkal leen nag mu dévier leen jaarloo leen ci mbir yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala bëggu bëggu fa wa kadalika ni ki noonu ci ngay fekkaat ci yeneen xadit yonent bi alayhi salatu salaam mu ni sunu borom dafa xool ab jamono waa àddina mu jéppi leen arab yeeg ajam yeeg ñëpp ndax caay-caay geeg bokkaale geeg mbont gi sunu borom daal di yebal muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw pour daawa yonent bi nag mbokk yi bi mu ñëwee coono bu mboolem yonent yi dajoon ci wéetal yàlla sallallahu alayhi wa sallam daj na ko ca saa bu ñu demee ba nit ñi di ñu jamee xanaa amuleen lu ngeen discours lu dul pas-pas loolu jërut mer loolu lu ñuy kontaan la loolu da lay wan ni yaa ngi ci yoon wi dinaa wax gars yi ne am na xeeti wax yoo xam ne jërut tontu jërut mer ndax da lay dëgëral wan la yaa ngi ci yoon bi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalekat bu mën a jàngalee ni moom leer ay wax wa aqiya jawaami al kalim am fasaha loo xam ne ñun fukki baat ngay boole mu doog a leer moom benn baat lay wax mu leer mën a jàngale yàlla di ko waxyu mu tiim ndongo yu mel ni saxaaba yi ñor xomb muus yeewu am yëg-yëg am ngëm ëppale ñu ko fuuf mu téye ab darsu di leen ko jàngal fukki at ak ñett doog a cay pare laa sakka ni ñun bu nu ñëwee ñan la ñu war a def xanaa loolu kon ñun suñu kii rek dund lañ ci war a def jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara qulu laa ilaha illa allah tuflixu kon mbokk yi pas-pas mooy nuqtatul bidaya hiya nuqtatul nihaya aydan gis nga bépp daawa boo gis mu tàmbali te joxul pas-pas gëddëm ila al inhiyar wal inxiraab yàgg yàgg yàgg ci suuf la jëm mboolem mbooloo yi nga xam ne tey dañuy woote tey bismi diin te tàmbalee wuñ ci al aqidatu rasixa saxal ci nit ñi da ngay dem ba mu yàgg nga gis nit ñi di rocceeku benn par benn di génn parce que loolu du yoon wi bépp daaw boo xam ni pas-pas jox nañ ko gëdd waaye gëdd ga yeggut fa mu war a yegg da ngay dem ba mu yàgg nga gis mbir mi am nag sooxe ay séminaire du ko réglé déedéet am ay cadre du ko réglé. am ay nit yu bëgg daawa bi du ko réglé am ay moyens tamit du ko réglé maanaam pas-pas moom point pas-pas rek a ko réglé yonent bi alayhi salaatu wasalaam sonn ci pas-pas lu toll ni lan ca sonnoon laa shakka ni nit dana am yu koy xaar ci kanam ci ay aqabaat loo xam ni moo tax gis nga wolof sax ni mu ko tuddee ba pas-pas al aqida min al aqd pas-pas tey boo demoon ci fii nga wut benn buum wala wëñ bu ñuul nga ñëw téye ko nga fas ko ñuy wax nga fasaat muy fas fas fasaat ñaar yoon boo ko bëggee fecc di nga xam ni fas fas yombu te fecc kon loolu ci ci la aqida jóge mbir la moo xam ne dafay togg ci xolu nit ki sa mbërtal ci bëgg yàlla ak gëm ko gëm ni mboolem luy cëy yàlla yi sunu borom rekk ko moom jox yàlla li mu am ci yow gëm malaaka yi ak lañu laaj te loolu defe naa mbokk mi incha allah ci durus yi ngeen di jàng dana ko leeral gëm yonent yi ak àq bi ñu am ci ñun ci topp leen ak jéggal leen gëm bisu penc mooy àllaaxira dana ñëw bis dana ñëw suñu borom dajeeg yow pour fay la sa jëf yëpp li yajziya alladina asaa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bil husna gëm dogali yàlla te nag foofu nag jàmbaar mën naa ñëw ba yegg si foofu rek daa maram paan du mën a dem nit mën naa góorgóorlu al imaanu billah mu réglé mu jàll wa bil malaika wa bil rusul wa bil yawm al axir waaye bu yegsee ci point gëm dogal rek day am problème ndax xam ngeen al imaanu bi aqdaarillahi al mu'lima jàmbar dëgg ko man mooy koo xam ne ngëm-ngëmam ci wàllu dogal yegg na ci dogali sunu borom yi la ca neex ak la ca naqari yépp luy gëm ni nii la baaxee mbokk yi sunu borom laa yafaalu illa al xayr du def lu dul yiw ñun kay ñoo am problème mu guddi bëccëg lu njool lu gàtt lu neex lu naqari lu baax lu bon waaye sunu borom moom léppam lu baax la ki sunu borom téye teg ko feebar bu metti mu tëdd ay mbokkam yépp tiim ko ñu yërëm ko nañu xam ne yërmande jooju ñuy jaay ki ko sàkk muy sunu borom moo ko teg feebar te moo ko gën a yërëm allahu arhamu bi ibadihi min al walidati bi waladi bi wala di yaay ni mu amee fierté bëgg ci doomam yàlla moo ko gën a am fierté ak bëgg ci doom ji kon kat gëm ni suñu borom lu mu def rek noonu la kooku nag jàmbaar dëgg dëgg gis nga nag aqabaat yi boo ko joggee ba yegg si ci bii saa boo ko joggee rek yëgal ni ngëm yàlla nag fi ne am nay reen yu dëgër nag ci sa xol al iman bil qadar xayrihi wa sharrihi nga xam ni buntu bii ba ngeen jógee ngeen laaj seen sëriñ bi ay borom xam-xam yu bari ci buntu bi la ñuy tarxiisee al iman bil aqdar muy gëm dogal yi aqida mbokk yi bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaree saxaaba yi sonn ca ab daawaam lépp di aqida gis ngeen résultat bi yaakaar naa buñ lay jàngal saxaaba yeeg seen dund xaw tuuti ko da nga yaakaar ni ñii duñu ay nit ahan kay ay nit lañ koo xamee da nga dem ba daanaka sa dund gi dafa mel ni bëggatoo ci dara ngëm yàlla gi yegg la ci foo xam ni ay ay ay kéemtaan rek day def parce que nit ñi yi ñuy gis doomu aadama baaxoowul di xam nit di man yu mel noonu fekk li kay li tax nit di man loolu mi ngi bàyyi ko ci aqida moo tax nag départ bi ñi ngi rawantee ci aqida digg ba ñoo ngi rawantee ci bari ay ibadat fee ba ñoo ngi rawantee ci sellal loolu na ko ñun ñëpp bàyyi xel départ bi ñoo ngi rawantee ci gën a setu pas-pas gën koo dëgërale digg ba ñoo ngi rawantee ci gën a barilante ay ibadat waaye arrivé ba fa ñuy dalee nag fa ñuy teeree ji rawante ga ma nga ci sellal ñetti tomban ngi yoo xam ni bii ci wasof bi la nekk ci digg bi bee ca bidaaya ba la nekk bii ci nihaaya ba yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam ci manhaju daawaam la shakka ni boo ko xoolee lu metti la gis nga tey mbokk yi muy góor muy jigéen kenn ku ci am problème ak problème bi nu mën a toll dafa fekkee da ngaa xamul siratu saxaaba siratu salaf xaasatan alsahabata minhum kullul masaib musiba ju mën a taxaw ci sa kanam dafay doyadi dootoo ko joxati valeur ci kaw boo fàttali ko yonent bi ak daawam ak ay saxaaba yonent bi alayhi salatu wasalam ala ujalatin saria xam ngeen ni bi ko sunu borom aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu bi ko sunu borom yónnee fa cedd ba sampee ay reenam talal fa ay béjjënam fara yonent bi ñëwoon mi mag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wax yi ko mu ñëw bi mu ñëwee dëgg la soxnaam gëm na ko kon li ko sunu borom njëkk a dëgëralee mooy soxna su baax daawa bi moom lu mu gudd gudd tànk du fàtte Xadija Abubakar gëm te xam ngeen ne kuy Abubakar ila axirihi ak ñi nga xam ne ñoo gëm Ali ibn Abi Talib ca gone ya Zaydu ñoom ca jaam ña Bilal ñoom ca ca jaam ya kadalika ila axirihi waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbokk yi daj na ci ay xeeti méttit loo xam ni képp kuy daaya ku ne soo ko tegee nasba ay nayik dootoo découragé maanaam sunu manhaj bi sunu daaw bi ci boppam moo amul découragé ak lu mën a ñëwee nit ki daf koy mën a dégg ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam tàmbalee di woote wéetal yàlla te fekk xirim yaa ngi fi ajaala al alihata ilahan waxida ah moom de daa bëgg nag léegi suñu yàlla yëpp ñu sànni leen def ko benn yàlla mbokk yi li lay ma ne découragé amul ci daaw bi xool yonent bi alayhi salaam benn personne la woon makka di ummul quran ndayu dëkk yi nekk ci centre du ma wax centre ville bi ci addina bi ci diggu addina bi la makka nekk léewan ni woote bi yonent bi dafa matale mooy sunu borom dafa tànn ummul quran muy màkk mu ne ci digg addina bi yàlla yónni yonent bi foofu alayhi salatu wasalaam maanaam fi taaru bi sampe waa penko waa sowo ba gannaar ñëpp ci bokk yam parce que ñu ngi ci digg addina bi moo tax demkat yi màkk yëpp kenn du am looy wax ci soreg màkk parce que màkk ci digg bi la nekk wa addim fi nnaasi bilhajj yatuuka rijaala wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq yonent bi alayhi salaatu wa salaam au lieu que mu taxaw yi xalaat ni nan laay def ba dëkk bi jóg comme ñun nit ñuy def sunu doxaat yi nga dikk samp fii rek gis nit ñu ngi ci bokkaale ci wéetal yàlla nga découragé nan laay def ba ñuy yéen sax la moo la gënoon yaatu fu mu doon daawa saxaaba yi ñoo la gënoon yaatu luñ doon daawa waaye da ngay am courage ci ni ñii ñëpp des na leen génne ci jaamu kudut yàlla yóbbu leen ci jaamu yàlla te lu facile la lu yomb la nag walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wala yansuranna allahu man yansur yéen saa salaam commencé di daaw tàmbalee ci aqida comme ni ma ko lay taayee waaye nag technique yi nga xam ne yonent bi doon na ko jëfandikoo ci daawa yu am solo la bokk na ci yooya mooy gis nga nit ñi boo leen di woo da ngay yombal te loolu daaye bi moo ci jiitu waaye ñun ñi nga xam buñ jógee ñooy nekk bànqaas ci tàbbi ci biir kër yi nañ ko xam nit ki bu dikkee indaale ay mbir yu bari yu ci bokkut faw ñu muñal ko yenn yi ngir yim baax la yu bëree ngi nii tey yoo xam daf dañuy énervé wu pour na gaaw am na gaaw sotti fekk yàkkamti na te istiajaarul natiija bokkul ci liy doxal daawa yéen sakalam commencé di daawa affaire bi di metti gars yi di ñëw kenn par kenn Abubakar ñëw tuub Xadija fekk tuub na Zayda tuub Ali tuub ndax dañuy wax ni nit ki na dem daawa bu mu jàngi déedéet kenn du wax loolu loolu mën ajun xawfi ndax dañuy wax ni ku jàngu dara dara ci biir sa gémmiñ bul wax dara déedéet loolu tamit mën ajun xawfi ndax Abubakarin Siddiq keroog dafa tuub ne yonent saa sallam lan mooy sama liggéey yonent bi ni ko lii sama liggéey mooy sa liggéey mooy daawa la falaq wala naas wala ixlaas wala abasa wala amma wala fatiha wala wala shay maa fi jaw fi illa al iman al xaalis ngëm yàlla bu dëgg gi ñu ci xol bi Abubakar bi mu yeewoo dafa gëm ni man war na maa am gëm-gëmu dafa am ñu may gindi ndax la yahdi allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min xabarin naam tey benn parking bu def ay oto ba mu fee dell nga xam ni ay million la ñu yëkkati ko may la ko sa yonent nee na nga dem fexe ba benn waay gindeeku ñëw ci sunna wala ñëw ci l'islam ala wajhil umum moo ëpp tiyaaba loolu moo gën mbokk yi est ce que ñun yëg nañ ñun ñun kan lañ am sali hada nafsak laajal lii sa bopp yow kan nga am bi nga dalee daawa ba léegi kan nga xëcc kenn nee ma diw mii daal maa ko daawa di ko leeral ba mu ñëw ci sunna tey bu dee am nga ko day santal yàlla te nga xam ni yàlla may na lu rëy parkiri oto boo xam ni cent cinquante millions mën nañ ko faa génne nga fexe ba benn nit gindeeku daawul julli muy julli wala jubul woon mu jub daawul jaamu yàlla muy jaamu yàlla loolu moo ko gën léegi ban effort nga def ndax am nga kenn nit yow ki ëppal kenn am ñaar ki am mbooloo moom xanaa kooku mën na dem ba àllaaxira dañuy fàgg yiw wum xamul sax moom yiw yëpp boobu la jullit war a am te it nag booy jug ni da ngay daawa bul jàpp ni ñu ñàkk solo ñi ci benn bi nga war a daawa kaatay da ngay loo war a daawa aw ba kirin siddiq xëyam mu barkeel moomu ca la Saadu nabi waqaas ñëwee woon allahu akbar ndijaay yonent bi alayhi salatu wassalam ca la Osman ibni Affan ñëwee alladi tastaxyi minhu lmalaika ci xëyam mooma ca la daawa waajoo xam ni yàlla da ko rus ay malaakaam rus ko subhaanallah damay wax ni Abubakar bu ñëwoon ba àllaaxira fekk ci balance tiyaaba mu Asmaan ni fa cop doyal na tiyaaba moom Abubakar bu ñëwoon ba àllaaxira fekk ci fañ koy peeseele ay jëfam ah fa Asmaan toog fa loolu doy na jaamu yàlla ku yonent bi kontaan ci moom ba toog guddi lëmm di ko ñaanal moom kese ba fajar jot Asmaan yow aparté loolu def def na suñu borom kooku ci mel ni xëy moom la jóge kibaaru saxaaba ci al asharatul mubashsharuna bil janna ñun ci xëyam Abubakar mi lañ bokkoon kon yëg-yëg boobu la kenn ku nekk ci ñun war a am dafa bokk ci mandarga ahlus sunnati wal jamaa mooy ñoom dañuy xam dëgg ba noppi yërëm bindee fii nekkul ci dëgg maanaam xam dëgg yi mooy ginnaaw bi nga xamee ba noppi li nga xam yow ban participation nga def ci société pour nit ñi xam ko mbokk yi lan moo tax ñun léegi ñoom découragé ci daawa bu njëkkoon da ngay gis nit ki dafay xër ci daawa sama baay sama yaay samay frère samay sœur subhanallah ndax da nga bëgg nga dugg biir aljanna gis leen ñoom ñu nekk ca safaan ba wala ayaatu billah déedéet li nga mos fexeel ñoom ñu mas ko ak loo def ci ay coono jar na la taxoon saxaaba yi dem badar loolu la moo taxoon ñu dem Uhud moo taxoon ñu dem xandaq moo taxoon ñu dem xaybar dayey metti yi ngay dégg yëpp bëgg nit ñi gindee ko moo tax Abu Hurayra mu ni lii de kenn mësu koo gis di ommat nit ki bëgg koo dugal àjjana mu lay daggal ay saaga te sañoo fayu te sañoo koo bàyyi wala dafa metti nag di ommat nit ki pour bëgg mu dugg àjjana su la daggalee saaga doo fayu su ne diw mu faw nga taxaw te doo découragé loolu nag mooy maarifatul xaq wa rahmatu bil xalq da ngay xam dëgg ba noppi yërëm ñi si nekkut nag ahlu sunnati wal jamaa dañuy am rahma ci nit ñi képp ku tegewul ci yoon wi fu ñu toll diw daawa bi yàqu na parce que diw moo ko yàq waaye diw moom yow ndax mas nga julli benn guddi nga ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala est ce que mas ngaa julli ñaar raak rek ki la gën a lakkal ci koñ bi nga ñaanal ko yàlla mu gindi ko est ce que mas ngaa def loolu diw mi ñi moom moo def toj tojaange ji au lieu que nga toog ci di wax wax yi faju dara demal nga ñaanal ko yàlla hidaaya allahu akbar ba saxaaba ya jaaxle dëgg dëgg dëgg doole néew dañu ñaan yàlla Omar ibn al-Khattab gindeeku subhanallah ponkal moo xam ni kenn taalu suñu borom la woon Ammar ibn Yasir nekk ci biir néegu Zayd wala Fatima rakku Omar ibn al-Khattab ak jëkkëram ñuy jàng alquran Omar ibn al-Khattab génn dem ci taxawaaru ji nga bu jaasim ni Muhammad moom tey dama koy def nii mu dee benn yoon mu taseeg benn waay bi ñuy wax no ayib mu ne ko yow foo jëm mu ne ko Muhammad mii di dofloo suñuy gone di weddi suñuy baay di jaxase jëkkër yeeg jabar yi moom laa bëgg a rey tey mu dee no ayib mu ne ko yow ba da ngaa laax jaay xanaa da ngay laax lekk yow yaa ngi rey Muhammad te yow am na ñu la gën a jege ñu tuub Omar ni ko kan moo ma jege ku tuub mu ne ko xanaa sa sœur Fatima ak jëkkëram Omar daal di tourné nga bu jaaseen dem di leen féeti mbokk yi jamono jooju métti na de wallahi tey tey nga am daawa bu neex bañ lay woo ci kay jàng alquran nga nelaw ba heure bu la neex nga bëgg sa téere saa saa sax nga tardé saa saa doo ñëw mbir mi dafa yokk saa bu far baree sëgg day jafe waaye xoolal ñoom buñ doon jàng quran dañuy dugg ba ca biir néeg ba tëj bunt bi subhanallah pour mën a jàng quran parce que ñemewoo jàng ca kaw nit ñi dina dégg xalaat sa téeméeri junni xel xalaat ko boo ko defee rek nga dégg mbokk yi ñun ñun suñu lii ndax dina barkeel suñu lii yomb na de Omar ibn Khattab ñëw ba ci bunt bi yoo dégg la ñu jàng suurtu Taaha mu fëgg bunt bi Ammaar ibn Yaasir dugg ci biir ndal gi Xabbaab jël téere bi sànni ko Fatima Fatima borom këram jël téere bi sànni ko ko mu roof ko ci ron poñam bi Omar dugg see daan ni lan ngeen doon jàng nii ñu ne ko jànguñu dara boobu boobu ñi mu ko sa Qur'an la ñuy jàng xalaatoo sax naa ko Qur'an laa jàng parce que gëmuloo ni ñii dinañ tuub ci noonu Omar moom ñoom coow li ci biir néeg bi Omar daal di songu jëkkëru rakkam ji mooy Fatima di ko dóor bi mu ko songee di ko dóor Fatima ñëw di sot Omar bi tar ñi loxo bi rek toj bakkan bi deret ji sotti bi deret ji sottee nag ndaw si xam nga léeg-léeg ñëpp day tax nit wax ne ko yow ku ñàkk fulla nga yow ku ñàkk jom nga yow téye sa rakk di ko dóor nii bay toj bakkanam yow amoo fulla yow boo amee ñoo doog da ngay dem sa morom ñi nga foofu nag da koo xas na ni ko ba amul fulla da ngay dem sa morom ñi nga dóor leen xanaa man nga ñeme xam nga loolu boo ko waxee góor gu am jom bu yéegoon ba ca kaw sax day wàcca day peera Omar rus na xamut lu muy def mu ne waa léegi li ngeen doon jàng laa bëgg ngeen jox ma ko ndax man li ma dégg daf mel ni neex na xabaab xam ni nag kon mbir yi ndeke xa Ammar ibn Yaasir Ammar wala xabaab xabaab la adri xabaab aywa mu ne xabaab ibn al arab mu ne ah kon dafa mel ni ñaan gi ma déggoon yonent bi di ko ñaan démb démb dafa nangu mu daal di génn ci rongal bi ni ko Qur'an lañ doon jàng mu ne ko jox ma ko mu ne ko yow yéefare nga gis nga de ñu ngi commencé indi pourcentage de liñ doon ragal ragal ngëm day toll koo xam ne maanaam bu ragal jotee ragalal waaye bu ñeme jotee ñemeel bu wax jotee waxal Qur'an lañ doon jàng indi mu ni joxuñu la xam nga affaire bi fi mu nekk nii xool diggante ragal gi ñeme gi ni mu gaawee ngëm mooy def loolu jox ñu mu ni joxuñu la da ngaa yéefar nga da ngay sangu ji ba set Omar sangu ñëw ñu jox ko comme qaari la woon mu jàng bi mu jàngee nag ndekete sharaha allahu sadrahu lil islam man yurid allahu an yahdiyahu yashrah yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fi sama Omar di lii ma dégg nii lii mooy dëgg man damay tuub wax leen ma fu Muhammad nekk sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ndax xam nga fil aalami kulli koo xam ni moo gën a dëgër fit yonent bi alayhi salatu wasalam amut te moom ci ñu doon làqatu la bokk mbokk yi daaw bi day toll foo xam ni faw ñuy làq ba yegg fa ñu war a fasale buñu yàkkamti yonent baa ngi ci biir kër Arqam ibni Abil Arqam allahu akbar jàmbaar jàmbaar jooju nga xam ni moom dafa pare woon pour joxe këram ngir mu nekk chaise u daawa bi kan ci ñun mooy joxe këram pour mu nekk chaise u daawa bi ñun suñu alal sax daanaka daawa bi nasal allah salamata wal afiya Amar ibn al-Khattab waaxu ba ñëw ci buntu kër Arqam fëgg yonent bi dégg bi ko yonent bi déggee ne eh jugal nga dem tijji bunt bi waa ji dem yërndu seen muy Amar mu daw ni yonent bi tey ñu dee ndax Amar ñëpp a ko ragaloon fekk nag alhamdulilah booba Hamza tuub na te xam Hamza xam ngeen ko Hamza daal ni bàyyi leen ko mu ñëw bu dee jàmm la indi ñu bokk ak moom jàmm ji bu dee jaati la indi ñu lem ko ci jaateem ji rey ko ci daal di jóg armé wu taxaw moom Hamza bi Amar ibn al-Khattab dugg see rek yonent bi jël ko jël mu njëkk jóg rek poñe ko Amar ibn al-Khattab ragalal yàlla fonkal mu doy ni yow ak doole ji la yàlla may ngay saagar saagari fii xanaa yow doo góorgóorlu nga dugg ci lislaam Amar ne ko loolu moo ma tax a ñëw subhaana rabbina al-aala gis nga kaay bi mu tuubee Ibn Mas'ud nee na dañoo toroxoon biir Makka waaye bi Omar tuubee nag lañ commencé am tedda nga moo tax Omar moo doon wax ni islam moom la ñu yàlla terelee ginnaaw bu ñu toroxee woon fuñ mënti wutee ji teraanga budul ci l'islam nag faram yàlla toroxalee Omar ibn Khattab tuub fil xiin ci saasa mooy yonent bi xanaa ne dañoo ñëw ci dëkk yonent bi ne ko ahankay mu ne ko làqatu métti mi lu ñuy def di làqatu kon ndekete mbokk yi dafa am moment bu ñuy toll néew doole dana tax ñu nëbb li ñuy def fa in aradta najahan aw balagta munan aw buluga munan fattum umuraka an xaafin wa muntaib am na koy toll foo xam ne ba bëggee réussir ku sol daal la ku solul daal nëbbal say mbir yëpp laqatu ci nga de bokk yi am na mbir yoo xam dañ koy nëbb bu wax ni maa nekk ci dëgg rek lu ma neex feeñal déedéet du noonu de am na mbir yoo xam da nga koy nëbb ba génne ko jot bu doon loolu la koy julli ko julli kon nga jàng ca kaw lu tax tisbaar nga jàng naan kon mbir yi am na lu ñuy def ca kaw lu ñuy def ci suuf loolu nag xekma daawa la Omar ibn al-Khattab génn ànd ak mbooloom saxaaba yi takbiir yi mel ni bu nopp kenn waxati ci biir Madina yéen fa yëpp jaaxle Omar indi leen ba ci biir Kaaba gi ñëpp fu neex waaye taxawal nga julli ba kenn laal keroog la gars yi doog a ñemee julli ci Kaaba gi mbokk yi mbir yi foofu la tolloo bàyyil boobu xoolal xekma daawa ak nit ki ni muy amee dal yonente bi alayhi salaatu wasalaam Abu Dar ca àll ba ponkal mu njool ca kaw am doole nag Abu Dar balaa muy tuub agresseur bu mag la woon sax ci xifaar bi mu déggee yonent bi woote alayhi salaatu wasalaam parce que daawal mi ngi commencé am barke mu yabal rakkam bu ñuy wax Unays ni ko demal nga xoolal ma Unays ñëw déglu déglu déglu ñibbi mu ni ko man de lii ma dégg demal la sa bopp xam naa lii mooy dëgg Omar daal di jël ëmbëb cere defar ay bagaasam ñëw Makka bi mu yegsee pour wala affaire bi ci nëbbu la ñu tolloon ak sacrifice bi saxaaba yi doon def nga yëg ko yonent bi alayhi salaam mi ngi daawa ndànk ndànk rek wax naa la sànq ci étape bi ñu tolloon bay làqatu léegi bi Umar ibn al-Khattab tuubee nag fës commencé naa am tuut tuut doonte teewu ba léegi làqatoo ngi am parce que mbiri ngi ñëw ca kanam muy hijra ak gis nga technique bi ñu doon def ci làqatu loolu lépp ci daawa la bokk Abu Dar daal di ñëw waaye laajul kenn nag waxul kër yonent bi laa jëm waxul yonent bi laay seet waxul may jiw dañu cell rek Abu Dar ñëw ci dëkk bi xoolal de mbokk yi mag mu bàyyi sa kër bàyyi say njaboot amoo loo lekk amoo loo naan du sonn lool un mois ngir rek naa xool daaw bi mbir yi njëg la de ku mu jaral doo waxaale Abu Dar ne damaa toog ba mu yàgg ma Ali na bi pare ba ko jëkk romb Ali romb ko rombaat rombaat mu yàgg mu ni wax kii jéem a karaat mooy kan bi mu ko laajee mooy kan mu wax ko ni ko man maay Abu Dar fan nga newoon mu ni ko weer a ngi nii maa ngi biir Makka mu ni ko weer te nit ñi gisuñu la mu ni ko waaw mu ni ko foo newoon mu ni ko ci seru Kaaba gi laa làqatu woon yow foo doon jëlee loo lekk mu ni ko ndoxum zam-zam rek rek laa doon naan ci weer wi yëpp allahu akbar te Abu Dar nee na ndoxum zam-zam bi dafa dem ba commencé dama may yaram ba ko yent bi déggee la ne ko taamu taamin wa sharabu sharib ndeke zam-zam daal lekk la naan la nee na un mois zam-zam lay naan muy dem naa ba nomba yi ne sama biir bi sax commencé yi fonkitu maa muy am yaram la bëgg a wax ci ndoxum zam-zam kese allahu akbar ali ni ko kaay ma yóbbu la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag boo ma toppee su ma doxee ba mu yàgg ma taxaw taxawal soo ma séenee ma taxaw mel ni kuy tuur ndox rek xamal ni danger laa gis maanaam technique yooyu yëpp ñu koy def gis nga muus yeewu li wolof yi naan yeewu boo ko deful dañ lay yeew noonu mu dem ba dugal ko ci biir kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko yow foo bàyyi ko mu ne ko départ laa bàyyi ko mu ne ko lan moo la yëkkati mu ne ko déglu si li ngay woote ndax yàlla moo la yónni wala déet yonent bi jàngal ko Qur'an gis nga rek mbokk yi Qur'an moom la ñuy tàmbalee daawa bala ñuy jàngale nañ jàng Qur'an mbooleen ñeent doon daawa ñi ma gis tuju sànq Abu Dar al-Ghifari Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ba ci jinne ya laa wax nag wa iz sarafnaa ilayka nafaran mina al-jinni yastami'una al-Qur'an même jinne yi sax yonent bi Qur'an lañ doon jàngal Qur'an dafay def ci xolu ku gëm yàlla leen dul def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di waar Abu Dar Abu Dar pour dugg ci l'islam Abu Dar ni ko nag li waa dëkk bi bañ tey ma def ko mu ne ko lan mu ne ko ashhadu an la ilaha illa allah ji waa Màkka yi bañ a dégg tey ma wax ko ca kaw yonent bi ni ko mukk bul ñu indil problème noppi jërul ngay wax Abu Dar ni ko tey ma wax Abu Dar dem ba ci pegg Kaaba ga yéeg ci benn xeer daal di wax ca kaw ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kër yi commencé di génn ñii indaale seen i xepp ñii indaale seen i gopp ñii indaale seen i bant keroog da nga ko dóor ba mu daanu xëm deret jaa ngi fees jënd mënoo xam yére yim sol yére lan la ndax baat boobu moom xel xalaatul di ko yëkkati ci kaw moom parce que boobu doole islam amagul doole Abu Dar daal di ximmaliku sëlmu defaru ba yeggal demaat ca kaw xeeru gis nga ngëm yàlla nag léeg-léeg day toolal nit ki foo xam ne dootu man nit ñi li ñuy yëg ba di la yërëm yow da nga koo yëgul ba yërëm sa bopp loolu nag ngëm rek ko man mu yéegaat ci kaw montagne bi waxaat même wax ci gars yi songaat ko dóor bañ ni bii moom fa la jaay dem àllaaxira mu jugaat sën mu waat yéegaat ci kaw gis nga ba mu ko defee gars yi daw di ko song Abbas moo ñëw Abbas mi leen gis ngeen kii Rifaar la dëkk te xam ngeen Rifaar ay ponkali agresseur la te bu ngeen ko reyee yéen du ngeen tukkee yéen lii moo ko may chance gars yi bàyyi ko Abu Dar daal di yéegaat ca kaw montagne ba waxaat la mu waxoon kenn faalewu ko gis nga rek mu yéeg wax kenn faale wu mu doog a wàcc ndànk dem ñibbi dëkk léegi mbokk yi xoolal kooku coono bi mu def ngir benn baat yow lan nga def yow doo muuroo ci kër gi fajar doo dem jàkka ja mbaa añ jot ñu añ bàyyi la ndax sa dars yu bari yetta nangam maa nga doon jàng ñu lay fayal nga xam sunna ñu ne ci kenn dugg la fayalat mbaa da ngaa bëgg a vacance ñu ne kenn du la jox paas tabaski jotoon na ñu xottil waa kër gi xottil loolu ngay mel loolu moo mooy sa coono ñun amuñ coono wallahi amuñu coono mbokk yi ñun dañu dara dañu dara dara ñoo xam ne seen dëkkuwaay yi subhaana rabbina al aala dëkkuwaay la yoo xam ne bu doon insécurité moom rek fa am na waaye nag yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ñoom ngërëmal sunu borom moo ñu gënoon a yitteel gis nga yonent bi alayhi salaam loolu rek daawa ndànk par ndànk di woo kenn par kenn daawa kenn du ko yàkkamti woo naa ko ba sonn gindeekuwut lu bu ko kenn di wax daawa ku la yàkkamti lo istiajaru nasaib dafa bokk ci li yàq daawa daaw ba ren maa ngi koy woo daaw ba ren maa ngi koy daawa léegi kii du ma ko waarat ayo yow daawo kii du ma ko waarat loolu daa yi du ko wax déedéet dee ko ñaanal yàlla te it xam ni innaka la tahdi man ahbabt walakin allaha yahdi man yasha Abu Hurayra dafa tuub yaayam di saaga yonent bi saaga yoo xam ni ñun tey kan moo ci mën a supporté loolu lu ndaw rek la sa parent def rek nga bëgg a tukkale àddina bi lan moo tax mun ñu am ak yaatu dën dëgg la bu mer jotee meral bu wax jotee waxal waaye faw nga am yaatu dën ci daaw Abu Hurayra xam nga ñaari mbir yi la ko doon fajee mooy laqatu ci rukk jooy ba xolam seet ndax bëggul ku saaga yonent bi ak saa bu jullee mu ñaanal yàlla benn bis Abu Hurayra dafa ñëw ci yonent bi jooy jooy yu métti sallallahu alayhi wa sallam ni ko lu xew mu ne ko li la yor sama yaay daggal dee bañ koo dégg sax ma ko gënal ci nga ñaanal sama yaay yu gindeeku yonent bi alayhi salaam yëkkati ay loxoom ñaanal allahumma ahdi umma abi Hurayra gis nga Abu pour la saxaaba yi ni ñu fonkee woon yonent bi Abu Hurayra fitti sampu xel ndax nee na gëm naa ni ñaanu yonent bi moom yàlla dana ko nangu nee na bi ma yegg see ma daal di fëgg bunt bi yaay ji ne ko xaaral nee na bi muy génn ak muuraay la génnaale ndeke tuub na ci ginnaawam ba muuru ci ginnaawam ñun kan ci ñun moo mos a jug juróomi guddi benn sax xanaa léegi moom xanaa waaye juróomi guddi kan ci ñun moo ko mos a jug mu seet mbokk mu ko jege mu bëgg mu xam sunna wala daaw mu ñaanal ko yàlla ñun daawuñ suñu coow moo bari rek daawuñ de suñu coow moo bari ci biti waaye daawuñ ñi ko bëgg ñu gindee ko kan ci rek nga mën a wax ni kii de juróomi guddi jug naa ko lëndëm tukki ma ñaan ci yàlla subhanahu wa taala mu gindi gis nga de yonent bi alayhi salatu salaam continué def ndànk ndànk ci daawa bi saxaaba yi ñu di leen nettal ci biir bopp bi Xabbaab ibn al-Arat bu Umar ibn al-Xattaab demaan ba yëg ni soxla na iman da nga Xabbaab ubbil sa mbub mi summeekul ma xool Xabbaab dañuy wax ni digg ginnaaw bi dafa amoon ay dank xam ngeen dank yi lu ko waral dañ ko doon jàpp summi yére yi taal ak taal guutamaay ko te kii téye tànk yi kii téye loxo yi ñu sindal ko ci taal bi comme nit ku yore kitel teg ko ci kaw taal bi di lakk. noonu lañ doon def digg ginnaaw bi xabaar xabaar nee na billahi diw gi ak geres gi doon génn ci sama yaram bi léeg-léeg mooy fay taal bi yaram bi def ay tut ay subhaana rabbil alam nga xam ni xool ko rek boo koy def di jooy amana danaa ko ubbil sa digg ginnaaw bi ma fàttaliku ci yàlla moom bu ko xoolee rek fàttaliku lan doon rek fillah Bilaal ibn Rabaah nga xam ne dañ ko doon yeew ci tànk yi di ko diri ci rambaaw mag nga xam ni yaakaar naa yéen ñi xam lu tàng lépp yéen a ma gën a xam ni teg sa tànk ci xeer wu tàng moo gën a métti teg ko ci kaw suuf ndax tàngoor salaire boobu xeer da koy téye bi loolu amee ñu di ko ci xëcc waaye taxut mu découragé parfata ayu ahadun ahad ma ni li may wax du ma ko changé ahadun ahad ki may jaamu kenn ki la muy yàlla benn baat rek giñal ci laata wala uzza mu ni duma ko def subhanallah ba ca la ko Aboubacar rombee ndeysaan yërëm ko daal di koy goreel yii nag mbokk yi li tax ma di ko tudd mooy kan ci ñun rek moo mën a génne benn problème bu mu am du ñàkk ci mbooloo mi ñu am problème seen biir kër waaye koo problème na yëkkati yii nga teg ko sa kanam nga xool yow waccal loolu bi yëpp yi mettee ba metti mbir mi dafay laaj sacrifice nag léeg-léeg xajatuñ ci dëkk bi il fallait que ñu gàddaay julli ñu commencé génn dem Éthiopie defe naa dem Éthiopie que moom di ko tudd day jël suñu waxtu lu bari ala kulli xaal dara gën ta métti bàyyi fi sa kër bàyyi fi sa jabar bàyyi te nekk te nekk borom kër lépp ngir rawale ji sa pas-pas rawale sa pas-pas jar na ko parce que pas-pas lu cher la kenn du ko nangu ñu koy yàq. gis nga julli ñi ci lañ demee Xabasa def fa Éthiopie def fa ay ab diir ba julli ñi lañ demee Madina xoolal demu Madina gi ni mu méttee. diggante Makka ak Madina say autoroute la boo xamante ni direct la lan koy daw ci ay kilomètres ci oto yi gën a sophistiqué yi ñëwee ñun subhanallah tey noonu la mel démb nag ab àlloor boo xam ne gaynde yaa ngi fi segg yaa ngi fi mi ngi mel ne ala sabili misaal ñu ne la jógal fii nga jëm romb bi génn bi ñëw naa jëm dugg ci àll bi seen àll bi ni mel kan ci kan ci yéen rek moo war a xalaat ni gàddaay gi ah jar na ma jóge fii topp àll bi war a dox trois cent kilomètres wala deux cent kilomètres ñaata musiba ñoo ne ci àll bi yoo xam ne bu guddi woon tey nga ragal ay góor ak ay jigéen doon dem jël ala sabili misaal ummu ayman nga xam ni keroog bi muy dem al ajab mooy dafa wooroon nga xam ne booy tukki sax nag woor wàcc na la fa mooy nekk li mu ne damaa woor ba pare topp naaj bu tàng bi daw di daw pour rawale sama pas-pas mu daw ba ngoon jot dog jot amut doomu tàndarma bu mu lekk amut kopp ndox bu mu naan nga xam ne moom aw sakalil mawt xaw tuuti kon mu dee yeneen ci laa jékki-jékki rek dégg lu yëngatu ma geesu geesu gisuma dara ma téen ci kaw seen benn potu ndox buy ñëw ma xool muy poto ndox mu ne ma taxaw di xaar affaire bi di wàcc di wàcc di wàcc ba yegg ci man ma yëkkati naan tuuti affaire bi demaat ci kaw ma toogaat tuuti mu ñëwaat man naan mu demaat ci kaw ñetteel bi man naan ba man di affaire bi ni mes xamatuma fu mu bàyyi ko fu mu jëm bu mu ay man mooy nekk li mu ne dund na ba faatu day jékki-jékki xelam nekk ci ndox rek mu ni may ma ma naan waaye ginnaaw bi mu naan ndoxum daawul ma at ànd ak nit ki dafay def yenn sacrifice yi nag borom bi daf koy dimbale subhanahu wa taala Abu Salama ak Ummu Salama Abu Salama dafa génn day gàddaay Ummu Salama génn Salama di seen doom bu jigéen génn waaye que Ummu Salama daal di génn mer ci loolu ñu ni kon Abu Salama yow booy gàddaay gàddaayaat yow kese waaye sunu doom du dem yaayam du dem ñu téye Salama di ko xëccoo ba fukkati loxo bi moom Salama. fukkati loxo bi Abu Salama xam ni ñii su bàyyiwul dañuy rey xale bi mu dem Umu Salama ne ne weer toog naa ko ngoon gu jot damay dem ca place bañ doon xëccoo xale bi di ma jooy kenn faalewu jëkkëram dem na jëkkër ji moom ngëm yàlla gi mayetu ko muy toog fii soxna si ay mbokkam téye nañ ko benn bis la benn waaye romb ko foofu rek ñu waaye yéen du ngeen ragal yàlla yéen comme ci jëkkëram la bëgg dem bàyyi leen ko mu dee ñu ni ko yóbbu ko dina ma ànd ak benn waay bu ñu Osman ibn Hunayf allahu akbar Ummu Salama ay nettali mu ni gisuma ci arab yi góor gu ragalee yàlla ni waaj déglu leen góor ñi mu ne yóbbu na ma ba ñu yegg su ma waree yegg ci gileem gi day wëlbati ko bañ maa xool xool ci ginnaaw su gileem gi waree taxaw daf may wan gannaaw ma wàcc ndax jigéen xëy na bu yëkkati tànkam yarama mën naa feeñ su Umu Salama nee sonn naa ci toogaay bi mu yësal gileem gi avancé ba ca garab gërëm tëdd fa ni Umu Salama tëddal fii nga ma bañ a dendeeg yow te bu mbokk bu mu daawoon te mu fendi bu ko ahzab wàccut suwar yu bëri yi wàccut ahkaam yi ayatul ahkaam yëpp Madina la waaye ngëm gi foofu la tolloo mu yóbbu ko ba Madina ni ko kër gën a ngay seen fala Abu Salama nekk mën naa ngi ñibbi lan moo ko andi woon dimbale ko rek ci yoonu hijra gis nga de kon yooyu mbokk yi ay sacrifice la yoo xam ne nit nit ñi dañ ko doon def nga gis koo xam dafa bandone këram bandone alalam lépp ngir daaw bi nekk ko milieu bi danaa toog ba gis ni fii mënatuma fee dund ma changé yonent bi alayhi salaatu salaam balaa ñoo dem Madina xam ngeen ni mi ngi doon daawa waa Makka ci période su aj gi ndax dañ doon aj ñoom benn bis yonent bi alayhi salaatu salaam di daawa ba mu yàgg dajeeg juróom benn nit wala ñu ni fukk ak ñaar ci waa Madina Asad ibni Zurara nga xam ni ca ñi ci njëkk ca la bokk te moo njëkk jiite juma biir Madina ñu jaayanteeg yonent bi alayhi salatu wasalaam ci njub ak su yonent bi njëkkee danañ ko jàppale ni yonent bi kon da ngay yabal ci ñun ku ñu jàngal déglul de mbokk yi daal faw am jàng waa Madina li ñu njëkk wax yonent mooy wutal lu ku ñu jàngal nekk mbokk yi daaw yi ay séminaire conférence kii baax na de waaye base bi mooy jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq jàng la de bépp daawa boo xam ne aqida la la ko ilal inhiyaar bépp daawa boo xamante ni jàng la la ko ilal inkisaar Musab ibnu Umayr ñëw di leen daawa waaye xoolal technique waa jooju Musab ibnu Umayr bi mu ñëwee di daawa ñëw na fekk Madina gars yi ñu ngi nekk ay jàmbaar yoo xam ni ñu ngi teertu yonent bi alayhi salaatu salaam waaye dal teey ak am solo olof yi nee nañ neel tekk boo dee tekk tekk moo lay wan fi ngay jaar Saad ibni Muaaz ak Usayd ibni Xudayr kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar kilifa bu mag nga ci biir Madina gis nga bi ñu déggee ni Muaaz mi ngi woote gars yi dañoo départ indi seeni jaasin dañ koy rey léeg-léeg nga dégg yenn menaces yi oustaz diw dañ koy rey jërul tiit loolu jërul sax ak bulaan sax du tam yooyu yàgg na fi ndax maa yuqaalu laka illaa maa qad qiila lirrusuli min qabli Muaaz dafa toog di waaraate ba mu yàgg Musab ibnu Umayr di waaraate ba mu yàgg Usayd ibnu Hudayr ñëw fekk li tax Saad ibnu Muaaz ñëwul Saad ibnu Muaaz ak Musab ibn Umayr ay doomi bàjjen lañ te bëggu ta rey doomu bàjjenam mu yabal Usayd ibn Hudayr ni ko demal ni ko budul woon ak li mu nekk sama doomu bàjjen ba léegi kil naa ko Saad ibn Muaaz Usayd ibn Hudayr ñëw bi mu ñëwee fekk Musab di daaw mu ñëw tiim ko dagg ay saaga wax ay wax yu gis nga léegi da ngay toll foo xam ne daaw bi lu mu la wax muñal amul tontu moom laay joxe misaal ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam xam ngeen ni Firawna wax na ko lu gën a bon la mu ko wax ba muy tontu te tontuwul alam bi rabbika fiinaa waliidan xanaa di yow bër ci démb nga judd fii di teg pat sàmba fii ci digg ëtt bi wax yu sante u faalta faalatika llatii faalta wa anta minal kaafiriin xam nga yooyu xat nit ki la waaye jamono jooju du jamono yi fayu parce que daaw bi lay doog a tàmbali ak situation yi loolu la laaj waaye keroog ba mu nekk wa inni la azunnuka ya firawna masxuura ci digg nit ñi parce que débat bi dafa dem ba Moussa di waaj a gagné firawna bëgg cee sëllax suuf naa ko wa inni la azunnuka ya firawna masxuura mu ni ko wa inni la azunnuka ya Moussa ya ya firawna masbuura yow damaa yaakaar yow da ngaa kutu séeréer parce que tontu léeg-léeg tontu léeg-léeg noppi da cay gën a baax am na yoo xam ne daa yi doo ko toog da ngay bàyyi mu jàll bi mu dikkee xas Mus'ab ba xas Mus'ab siggi xool ko ni ko yow kilifa gu doy ni yow waaw da ngay saaga dafa am baat yoo xam boo ko waxee kilifa rek bu dee ko am jom la da nga koy rusuloo yow waroo da ngay saaga mag mu doy ni yow li may wax toogal nga déglu ko am ngam xel su fekkee li may wax daf laa convaincre nga ñëw su fekkee convaincre la nga bàyyi ma moom ca xam ne maa jubul mu ne ko wax nga dëgg de daal di samp xeej bi topp Mus'ab daal di koy jàngal Qur'an mbokk yi daawa baa ngi de Qur'an lañuy daawa da ngay jàng Qur'an nga di ko jàngale mu jàngal ko Qur'an bi mu ko jàngalee Qur'an mu ni ko yow de lii ma dégg mooy dëgg ku bëgg a dugg ci seen mbir mi nu muy def mu ne ko xanaa sangu julli ñaar rakk tuub bàkkaar ya nga defoon dugg ci l'islam ca saata mu daal di sangu tuub dugg ci l'islam kii lan moo ko daawa dal ak tey dal rek xas yi bul fayu saaga yi bul fayu amal dal bi mu dellu see gars yi dañ ko xool gis kanam gi di bérex bérex wa dalika al imaanu yafaalu fi qalbi al mu'min gars yi ne ah kii de kanam gi mu indi ak ba mu yóbbuwoon bokku Saad ibn Muaz ne ko lu xew mu daal di def benn technique fexe ba nax ko ba mu ñëw fekkee ci daaw Mus'ab ibn Umayr bi mu yegsee mooy mënu ko muñ mu def na waa ji defoon wax ay wax dagg ay saaga wax ay wax yu bare bare allahu akbar gis nga mi waxee ba wax ji yegg Mus'ab ibn Umayr ni ko ah man de lii may woote dagg ay saaga waru la su fekkente ni yow lii may wax nii daf laa yit neexut nga bàyyi maa moom su fekkee déglu moom baax nga jël ko Saad ibn Muaz nag moom tuubam moo gën a kéemaane ñëpp ndax moom bi mu tuubee dugg ci lislaam ka saaxibi dafa ñëw dajale famille bi waa dëkk bi comme moom mooy borom dëkk bi kilifa gi mu ne leen yéen lu ngeen xam ci Saad ibn Muaz ñu ne ko Saad ibn Muaz day kilifa la ci ñun jàmbaar la ci ñun ku ñu ormal la ci ñun mu ni bis ni ki tey Saad ibn Muaz jël na décision dootul waxate kenn ci yéen lu dul da ngeen a tuub dugg ci l'islam wasalaam discours bu gàtt mu dem yoon waa dëkk bi xam ni kii bopp la kilifa la ngoon googu bani Abdul Ashhal ñëpp a tuub du góor du jigéen du mag ñëpp ñoo tuub laa wax laa sakka liggéey bu rëy nii ku ko def war a am lu rëy moo tax keroog bi mu faatoo yonent bi ne saxaaba yi ihtazza arshu rahmani li mawti Saad muy tey arasu yàlla ji ci boobu dafa yëngatu ndax benn waay ci saxaaba yi moo faatu allahu akbar ihtazza arshu rahman li mawti saadin mbokk yi kon sacrifice yii yonente bi alayhi salaam tëdd na di di julli ñu jël neefare gileem sotti ci kawam dox na ñu jël ay dég teg ko ci yoonam ila axirihi wax yu bari njabar sax def nañ ko ko yooyu yëpp muñ muñ waaye nag daawa bi na jàll rek kon li ma bëgg a wax foofu mooy fitna yeeg coono yeeg jafe-jafe yi faw muy ñëw waaye nag mbir mi njëkk la ku mu jaral doo waxaale bi yent bi yegg see Madina nag ba mbir mi dal te foofu balaa ma yegg ci loolu ci gaawal xam ngeen yéen sa saram bi mu jëlee pour gàddaay saxaaba yi dañu leen yebal benn par benn ñuy dem ñu nekk mbooloo Omar moom làqatuut moom moom dafa ñëw ci Madina di wër tey ci ngoon gi maanaam ku bëgg daal bu subaa sa jëkkër ñàkk la boo dee jigéen topp ma ku bëgg suba sa jabar ñàkk la boo dee góor topp ma ndax Omar suba lay dem moom làqatuut li mu doon def moom waaye ñi dagaloon ñoom dañ doon làqatu ndànk par ndànk yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar Abubakar bi mu yëgee loolu mu ne yonent bi tey ñoo dem yonent bi ne ko defal ndànk man jotaguma ndigal Abubakar ne ko kon tey maa def ndànk di la xaar mu ne ko xaaral Abubakar dem ca marché ba jënd ñaari gileem jënd ñaari saakoy pepp di yabal gileem yi ngir rek bu ñuy dem ñu war ko waaye mbokk yi yéen saa salaam texitu du woon ne texit xam ngeen melokaan yi ñuy texit ci melokaan yi gën a soof ci kilifa la mooy kilifa goo xam ne du jéem dara bàyyeeku ni ba sax lu la defal rek loolu la yonent bi Abubakar ak ni mu mel ci moom mu ni ko kaay ñu jël gileem yi mu ni ko déedéet baal ma jënd ko mbir mi warul yomb ba mu ëpp gis nga mu dikkee Madina ñu fekk fañ def jàkka ñu ne yii ñaari jirim ñoo ko moom gars yi ni pare nañ pour may la ko dañuy déedéet loolu sunu mbokki doo aadi nañ ko dégg gis nga booy daawa ni cëpp cib dëkk dëgg la buñ la mayee teere yooyu baax na waaye boo jëndee moo gën a baax ndax gis nga boo defut loolu nga commencé sa daawa commencé tàkk birax birax yi ba sut daawa yëpp bu seytaane jógee ci iblisa buñ la nar a yàqal jóge suñu place lañ lay wax technique daaw bu rëy nga yonent bi sama kanam gars yi dëppoo ci nañ ko ko jox ma ne gën saman xanaa jënd rek ñu wax wax wax mooy dama koy jënd lii mooy daaw bi de ñun ñii suñu kalaas gi am na ci ñoo xam ne tey fan dëkk bu yàlla naftoo woon leen moomuñu ko dañeen ko may wala ñu abal leen ko musiba am tey ndax am na ci ñoo xam ñi ngi wax loo xam ni la leen tax a topp fa ginnaaw dimbalu suñu borom mooy dañoo moom fan dëkk loolu lu ma tabayi xel la moo tax am na yoo xam ni du question bañ ko la defal la wala déedéet da ngay sóoraale lu ñëwagul ëllëg Aboubacar ànd ak yonent bi saa sallam dëgg la ñoo ne ci dëgg est ce que day tax dafa dëgg ni kon ñoo ko waxee déedéet yaakaar naa ni ku doon génn fi mu nekk nii wala ñibbi Dakar lu nii ngay jaar yonent bi war a gàddaay jëm Madina war a jaar nii jaar fii mbir mi faw ngay def ay technique yonent bi jaar nii dem ba génn bi ñona ci misaal jàdd na le wiiriwaat defaat demi tour bu soy lu tax ndax boo jëmee rek tëb jëm fii nit ñi dañuy xam ni kon madina la jëm kon nañ dàq suñuy fas dem madina fekk ko yent bi di jàdd jàddaat di jàdd jàddaat te xoolal ci technique yi amir ibn Fuhayr dañ koo jël ni ko yow yaay suñu gitt yaa nay wan yoon bi kon faw rek mbir mi li mu laaj nga jox ko ko asma doomu Abubakar ñu ne ko yow toogal ci kër gi deel togg di ñu indil fan nekk Abubakar moom àndal ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abdullahi ibni Abi Bakr moom yow yaa ñu jëlal information ci dëkk bi gis nga gis nga lu organisé wu wallahi mbokk yi ci islam rek la am nag nga maanaam ñu ngi koy ñoo bàyyeeku ni ba sax waaye islam moom dafa organisé woon lépp gis nga Abdullahi ibni Abi Bakr day def bu xëyee suba day ñëw biir Màkka di wër ci garam palaas yi dégg nit ñi li ñuy wax ci yonent bi ak information yi ah bu guddi jotee mu rocceeku ndànk ñëw jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam information yi dellu si waat dafa mel ni mbokk maa ngi wax ni julli jot na te alamat bi hada bu xadra naam tayib alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajmain yaakaar naa ne oustaz jazakumullah xayran te bu ñu fàttee ne suñu rajo bu tedd bi mooy rajo Awana incha allah suñu mbokk oustaz Sidiya Bodian moo andi rajo bi moo ñëw ci tur rajo bi pour jëlal suñu nga xam ne mooy suñu jotaay bu am solo bi kon incha allah dañuy julli bu ñu julli ba pare incha allah bi delli si waat te ci même dina doon 30 minutes ci wàllu question voilà ñu mën a lem suñu basaan incha allah jàpp juma baa ngi fi ñu julli ba pare ñu tijji même 30 minutes question incha allah góor yi nañ dem ci juma ji jigéen yi góor yi bu ñu demee ngeen julli fii après ñu daal di incha allah wallahu alam wa jazakumullah كان من الممكن ان نركز بهذا. اذا هذه الدقائق. ايه دفنا